الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى فما فوقها وأناله المقام الأرفع والجاه الأعظم الذي لا يدرك ولا يستشقى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة مسراه من آياته الآية الكبرى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله بما لا مزيد عليه من الخصائص والمزايا والآيات أيها المستمعون الكرام لسفينة تي في صديقكم وحبيبكم إمام بابكر مبوج يسلم عليكم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام ين مبوكي إنسبكتاتر u téléspectateur u Safina TV mu nekk fii ci sen bok sen xarit mo ñew ci sen émission makarimul dilen di len nuyu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi ñu borom bi wa taala mom mi nga ne rañane ab jaamam guddii jele ko ci masjidul haram muy ci màkkatal mukarrama jaar ak moom ca masjidul aqsa mu nekk fëre ca Jérusalem mu yéeg ak moom nag jéem a ca asamaan yu kawe ya wala mu romb ko sax dem fu gën a kawe sax asamaan ya muy sidratul muntaha borom boobu tabaaraka wa jox ko ay maqaama yu yëkkatiku ak ay daraja yu màgg yoo xam ne kenn mënu koo takk te kenn mënula xam dayoom yitam nag ñoo ngi seede ne boroom boobu nga xam ne tabaaraka wa taala moo defal teraanga ju màgg jooju soppeem ba di yonentam boroom boobu day ña ngi koy seede amul benn buur bu dul moom duñ ko bokkaaleeg dara moom day moo woon ab yonentam ca guddi googu nga xam ne ci la ko rañaane ci ay kéemaanam ak i kawtéefam aaya bu màgg ba di seede ne itam soppe boobu muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa jaamam la yonentam la te itam nag moo ko tànnal boppam jagleel ko loo xam ne amatul kenn koo xam ne day wut na leen lu ëppati loolu te loola lépp borom bi tabaaraka wa taala man ko ko def rekk ngir màggale ko ko terale ko ko te itam yóbbu na ko ba foo xam ne déggal na ko baatam maanaam waxi borom bi tabaaraka wa mu dem ba fa mu koy dégge mu yóbbu ko ci place boo xam ne itam toog loo ko fa nga xam ne kenn mësula àgg foofu boroom yonent boobu day ñoo ngi nangu ne ab jaamam la di julli ci moom nag ak mboolem ak ay saxaabaam yi nga xam ne day bi nga xamante ne jóge na ci guddi googu nga xam ne ci la ko yàlla defal teraanga jooju bañ leen laajee loola day dafa dolli seenu ngëm ndax ku mel ni abu bakrin siddiq radiallahu ba ñëwee di ko wax naan ko a ah, sa waa ji day waxati na ndax nee na day biig dem na fi ba baytil maqdis jóge fa dem gisanteeg borom bi tabaaraka wa taala waxanteeg moom abu bakar moom lam ca teg rek ndax moo ko wax ñu ne ko waaw mu nekkoon dëgg la te itam nag mboolem ay saxaabaam itam ci taxawaay boobu lañ taxawoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yéen mbokki auditeurs yi tey ñu ngi ñëw di waxtaan ak yéen ci kooku nga xam ne mooy muhammadu bnu abdullah wa rasuluhu di jaamu yàlla ba di am ndawam te xam ne mbiram yépp nag keman la te itam ay fam itam dafa lo wala mu lum lo kep ko xamne yaangi wax arab wala ngay wax lenen ludul arab ndax bokku na ci ay kemanam ne mom day dafa juddu rek nek yatim manam nekub jirim waye mu dundu itam ci ñak waye ke njirimam googu ak ñàkkam googu taxul woon rekk mu bàyyi ay loxoom te itam nag ñàkk googu itam taxul woon itam mu tere ko mu mën a jot ci lépp loo xam ne moo doon ay mébétam bu ko defee du yéem kenn sax ci xol bu sell boobu nga xam ne yàlla moo koy préparé xol boo xam ne yàlla moo ko waajal xol boo xam ne yàlla ci bopp moo ko soppal boppam nga xam ne yàlla moo koy sàmm kon kooku fépp foo xam ne mébétam àgg na fa rekk bu boobaa daf cay àgg bu ko defee yonent tu sallallahu alaihi wasallam dafa dundon ci bir nit ña nga xamne ne fa la juddo manam dundu fa dunduk nit ku sel ndax dira diru ak dundam mo xam ak ndawam la wala ba nga xamantene dem na ba nek mukallaf ba nga xamante ne itam mat na dëgg góor kenn mësu ko woon a gis ci benn place boo xam ne bu doyadi la waaye itam yàlla musaloon na ko ba fa mu juddoo dafa fekkoon nit ña di jaamu xërëm waaye mësul jaamu xërëm te itam nag dafa nekkoon exemple ci njub ba xatta luqiba xabla al eh, risaale bi saadiqil amiin ndax ku mënoon a sàmm kóllëre la ku juboon la ku tegu woon ci yoon la nga xam ne avant ñu ko yónni màkk gépp dañ koo tudde woon assaadiqul amiin ku dëggu ku wér ki moo tax bi ko borom bi tabaaraka wa taala teeralee ci yónni ko nag mushrikuun yi ñoom amul lenn loo xam ne moom lañ mënoon koo reproché walla ñu gàkkal ko ko ndax ñoom ñoo ko ko tuddee woon wax ne ki fi gën a jub a ngi nii ki fi gën a jub nag moom boo ko xasee ba wax mënatoo cee teg leneen moo tax ba mu waxee ne yàllaa ma yónni ñu ne saaxirun majnun kii daal ab dof la rek ab jabar la ah ab jabar bu dof dof nag kenn du ko dénk sa alal yaakaar naa kon moo tax yonent boobu sallallahu wa sallam ba mu waxee ne man la yàlla yónni day lépp loo xam ne mushrikuunu màkkay maanaam woy bokkaale ya manoon nañ ko rekk pour gàllankoor dox ba nga xam ne doxoon na ko jëm ko ci fi ko yàlla bëgg bant bu ne teg nañ ko ci yoon wi pour maanaam mu bañ a àgg fam jëm waaye itam nag saa yoo xamante ne gën nañoo yokk walla ñu gën a teengal mbugal mi ñuy wàccee ci moom rekk teewul muñam ga moom kenn mënu ko woona a waaye mbaaxam nga itam kenn mënu ko woon a mesurer xam ngeen ne ba mu demee kuufa xam ngeen ni ak la fa xew lépp taif afwan ba mu demee taif lañ ko fa teg ci ay mbugal yépp ba yàlla wax ko ne ko dey jox naa montagne yi gën a màgg ndigal ne lépp loo leen sant nañ ko def booba mënoon na ne rek montagne yi écraser leen dëkk bi mu yem fi waaye lan la wax allahuma hdi qawmi fa innahum laa yaalamuun yow yàlla yal na nga jubal sama gaañ ba ñu xam lan moom a tax a jóg ak lan laa leen bëggal ndax xam naa ne rek xamuñu li tax ma di leen woo bu ko defee nga gis ne kon bakkan la boo xam ne yàlla da ko mooñaale yiw waaye ruux goo xam ne itam li nga xam ne moo jaxasook moom mooy cofeel ak yërmande ak ñeewante moo tax ñun dañuy sant yàlla di ko gërëm bi nga xamante ne yàlla dimbale nañu ba defal ñu xéewalu nekk ci xeetam waaye mu dollil ñu ci nag ñu nekkaat ci diine muy al islaam bu defee yàlla de moo ko teral teral goo xam ne teraanga joo xam ne du fay mukk ci àdduna du ci ba muy dund waaye bi mu fi jógee itam daf fiy sax ba fàww muy xew-xewu al isra wal miraaj nga xam ne mooy rawaan gi nga xam ne yàlla moo ko rañaane nga xam ne jële ko màkk jaarale ko baytil maqdis jóge foofa mu daje fa ak mboolem yonent yépp jiite leen fa doora def miraaj maanaam yàlla nag teg ko ca mu ànd ak jibril alayhi salaam ak buraaq ñu rañaane ko jëme ko ca borom bi tabaaraka wa taala yàlla mag ñu koy nettali baada audu billahi min alsheytaani arrajim subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa alladi ila almasjidi alaqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir yàlla di wax ne tudd naa sellu borom bi nga xam ne moo rañaane jaamam ba guddi jële ko ca màkka jaar ak moom Jérusalem masjidul Aqsa ma nga xam ne yàlla ñun yàlla ñun ñoo teral lépp lu ko wër ngir lan ngir ñu won ko ci suñuy kéemaan loo xam ne dana dalal xelam dana dalal xelu ñi nga xam ne gëm nañ ko te yàlla moomu ko defal teraanga jooju kët mooy ki dégg lépp loo xam ne wax nañ ko waaye mooy ki gis lépp loo xam ne nit sa xalaat na ko bu ko defee muy guddi goo xam ne ci la yàlla rañaane soppeem ba ngir won ko rekk ay kéemaan teral ko itam ngir ñi nga xam ne ñoo ko doon doyadal ak di ko xoqutal ak diko sonal bu ko defé ñu xamné ki kii moy soppe yàlla motax xam ngeen ne borom bi tabaaraku taala teranga bu ne defal nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam yépp anamu pour teral ko yëkkati ko xam nga isra wal mi'raj da ci ben waaye teraanga yonent bi yi ko yàlla defal kenn mënu ko lim xam ngeen ne bokk na ca loola maanaam borom bi def ko muy safwatul bashar maanaam ki nga xam ne mboolem ku yàlla bind rekk moom la ca tànn moom la jox itam liwaawul xamd moom la itam ëllëg moom la suuf di njëkk génne te itam nag mooy ki nga xam ne moom mooy ràmmkat bu mag ba borom bi tabaaraka ko taala wàccel na ko waxyu wàcce dajaleel ko mboolem li nekkoon ci téere yépp ci benn téere muy alxuraanul karim defal na ko itam diineem mooy diine joo xam ne kaafatan lin naasi ñépp amul benn gox boo xam ne la ko yónni bàyyi beneen gox waaye daf ko yónni rek mboolem ci imanité bi te itam yàlla defal na ko kéemaan yu bari yoo xam ne yu palpable xam ngeen ne xaral na ko weer wi bëccëg ndara kaam xam ngeen ne doxloo a garab waxloo na mbët waxloo na ak ëkk goo xam ne dafa nekkoon daan ca buy xutba ca la daan toog am benn nit bu ko defaral toogukaay bu rafet andil ko ko ne ko ëkk gi dafay metti ci yow dil toog fii yonent bi ñëw toog ca di xutba ñu dégg ëkk ga di jooy di yëkkat ba ñépp dégg ko nga xam ne kii kat wax dëgg yàlla yàlla daal moom moo ko jiital wax ne ku ko topp mën nga topp ku ko weddi mën nga weddi ku ko lor mën nga lor yàlla génn ci képp koo xam ne rekk génn nga ci yonent bi yàlla génn na ci yow kon nag kii daal buñ fi nekkoon di wax ay kéemtaanam duñ ko mën a matal waaye benn rek muy lii nga xam ne yàlla moo moo ko ko jagleel faqad asra bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ihda al-layali al-mubaraka لتمر على المسلمين هذه الذكرى العاطرة والرحلة الميمونة المباركة فتعيد إلى أذهان المؤمنين suuratal majdi nabawiyil mu assal alladi balaga fi sayidi alxalqi aqsa ma yatasawwaruhu alaqlu fi hadihi min altakrimi alilahiy alazim muy xew-xew boo xam ne rañaan la jóg guddi yàlla tànn ci génn guddi ci guddeem yi muy laylatul isra wal mu nekk ci weeru rajab nekk ci ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar guddig ñaar fukki fan ak juróom-ñaar maanaam ñaar fukki fan ak juróom-benn ca guddi ci la ko yàlla defal ngir xew-xew bii di loo xam ne day sax dàkk ci fàttaliku jullit yi muy tukki bu yàlla barkeel bu ko defee nga xam ne day dellu siwaat bus bu nekk ci xelu nit ñi ndax borom bi tabaaraka taala moo ko ca defal loo xam ne mësu koo defal tumma danaa fata dalla fa kaana xaaba xaw ni aw adna fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa bu ko defee borom bi ko taala neena yonent bi dey ñëw na ba agsi ci man ba sës rëkk ci man ndax bu ñu la waxee ne la fit akub maanaam bant ba nga xam ne moo cay nekk yàlla ne maa ko gën a jege jege na ma lu gën a jege loolu kon rekk mooy dem na daal ba toob ak boroom bi tabaaraka wa taala moo xam nañu tooge borom boobu tabaaraka wa taala xam ngeen ne yàlla mboolem audience bu mu am ak ab yonent rekk daf koo nettali ci biir alxuraan yonent yàlla Muusa yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Nuux waaye yonent bi sallallahu alayhi bi mu ko recevoir ba pare maanaam bu doon tey dañ naan journaliste yi bi ñëwee tendre micro bi ne ko loo wax ak moom def leen ne moom xam na man xam na fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa rek la yàlla wax yàlla daal nee na wax yu naa samab jaam la ma ko wax la ma ko wax yu moom xam na man xam na kon xam ngeen ne fii la teraanga yem te itam borom boobu tabaaraka wa taala jox na soppeem boobu maanaam ay kawteef yoo xam ne ndax jéggi asamaan yi asamaan bu nekk ak yonent ba ko fa teeru ak malaaka ya ko fa teeru mu ñu koy limal toujours ngeen dégg ko ci gàmmkat yi ñu du ko wax jërul ñu ci dégg dellusiwaat waaye daal ala kulli xaalin borom bi tabaaraka wa taala déeyoonte naag moom déeyoo goo xam ne kenn jotu ca te itam dem na ba mos cafka jege yàlla cafka goo xam ne kenn mësu koo mos te itam yàlla defal na ko ci tase bi mu taseeg moom yëg-yëg boo xam ne mbindeef mësu ko yëg bu ko defee mu dem ba ag ci borom bi tabaaraku taala fo xamne jibril alayhi salam mi nga xamne sax borom bi tabaaraku taala mom la gëna fonk ci malaakam yi sax fo xamne ag na fa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam man kat fi la am digelu yam fi li ci dess nak yow ya koy motuli nga jis sax yonent bi sa alayhi wa sallam wax jibril ne ko waaw ab soppe nan lay ñëw ba fii bàyyi fi ab soppeem wàññeeku mu ne ko borom bi tabaaraka wa taala moo ko bëggee noonu wii kuloo lay doon sa digganteek moom nga jis ne keroog bi mu agsee attaxiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu assalawaatu lillah bii nga xam ne moom lañuy ñuy taayaa wax ne nuyoo yi sell yi yu teey yi day ñeel na yàlla julli ci julli yu teey yu sell yi itam ñeel na yàlla يالا ديلو كو نيكو السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بوكو ديفي يالا واخ يوننت بي صلى الله عليه وسلم نيكو يو سما سوبي بي سما خاريت بي سما تانيف بي مبولم جام ادوناك الاخره نيك ناتي ياو ناخ دوني yàlla ñaanul daf ko wax ne ko defal naa la jàmmi àddina ak alaaxira képp ku la déggal sax duggaale na ci jàmmi àddina ak alaaxira ak yërmandeem ak barkeem waaye gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu mas a nekk rekk xelam ma ngi nekk ci xeetam xam ngeen ne bi ko yàlla joxe nuyoo boobu won ko ne ko defal naa la jàmmi àddina ak alaaxira ak barke ak yërmande yonent bi fa mu njëkk a xalaat assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu wax rekk mooy jàmm jooju nga defal ma day yow yàlla yal na nga ko sotti ci sama kaw nii nga ko sottee ci sama kaw yal na nga ko sotti ci mboolem sa jaam yu yiw yi bu ko defee ña fa nekkoon ñépp ca biir asamaan mboolem malaaka yàgg ñépp wax ne ku ci nekk ne ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñoom ñépp mboolem ku fa mas a nekk nee nga ñun day nangu nañ seede nañ ne amul benn buur bu yeyoo jaamu budul buur bi tabaaraka wa waaye nangu nañ ne itam nag kii nga xam ne mooy gan gu tedd gii ñëw ci bërëb yu tedd yii mooy jaamu yàlla ba waaye mooy yonentam bi mooy ki nga xam ne ëllëg moom moom la yàlla di wax ràmmul ma may la nga ràmm moo tax mu wax ne shafaati li ahlil kabairi min ummati mu ne keroog boo xamante ne ñépp jàq nañ yonent yépp koo dem mu wax la ne man kat dama amoon benn contentieux bu dox sama digganteeg boroom maanaam te bëgg naa maanaam amoon na lu dox sama digganteeg sama boroom moom laa bëgg a xool ba xam yàlla jéggaloon na ma ko walla déet nga daw ci beneen yonent ñépp koñ dem rekk mais yonent bi ne ummati umati ndax yonent bu ne yàlla nee na am nga ñaan gu yàlla dul delloo ñi ca ëpp nag ñaanoon nañ ko ci àdduna waaye yonent bi sallallahu alayhi moom dafa waxoon ne dama koy denc ba ëllëg ñaanam daal daf ne samaw xeet samaw xeet samaw xeet mu wax ne sama ramm nag maa ngi ko dencal ñi nga xam ne ñoo def delu yu garaaw yi ci sama xeet bu ko defee موتاخ بروم بي تبارك وتعالى واخنا كون ولا سوف يعطيك ربك فترضى الله دنا لا جوخ باغا ني دوين سك اك باركي خام نين ني نك يوننت بي بوي واخ دوين سك اك باركي خام نا ني بو بوبا كيب كو واخ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله رك ان شاء الله داغا دوجو سي شفاعه yal nañ ci yàlla boole bu ko defee yonent boobu bi mu toogeeg borom bi tabaaraka wa taala ba mu defal ko teraanga yu yooyu malaakam yépp seede ne kii day ndawul yàlla la waaye ab jaamam la keroog ci la ko yàlla joxe kado bu rëy boo xam ne charité lay doon maanaam sëricë boo xam ne daf koy indil aw xeetam moo tax maanaam xew-xew bi isra wal miraaj mënula fay ci àdduna li feek nit ma ngi nekk ci kaw suuf di wax allahu akbar sami allahu liman xamidahu ak asalaamu aleykum rek mujiza bii du dañ ndax tukki boo xam ne sërite bi nga indi woon bus bu nekk nga yëkkati ko juróomi yoon doo ko mën a fàtte sërite bi nag mooy ci la yàlla farataale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom fukki julli ca guddi googu waaye yonent bi li ko yàlla wax ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ne yabaluma la lu dul nga nekk yërmande ci mbindeef fii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande gum am ci xeetam moo tax fu mu toll rek di dellusi di wax yàlla bi mu dikkee ci yonent yàlla Muusa mu laaj ko loo ah loo ëndaale mu ne ko man de juróom fukki julli yonent yàlla Muusa ne ko ah saw xeet nag amuñu doole sama xeeta leen ëppoon doole fuuf ëpp leen jot fuuf manoon leen fuuf te lii xam naa ne àttanuñ ko kon sa waxuma sa gaay yàlla mu dellu yàlla wàcc wàññi di ko wàññi par fukk ba mu des fukki julli mu dellu si mu ne ko dellul mu dellusi yàlla daggaat juróom yi mu des juróom mu ñëwaat ca yonent yàlla Muusa mu ne ko dellul yonent bi ne ko nag wax dëgg yàlla am naa kersa juróom fukk ma di ko wàññilu ba mu des juróom may dellu di ko waxati dara naa ko yóbbu rekk yàlla dégg conversation ba ne ko yaa muhammad na xamsun fil amali wa xamsuuna fi thawaabi amdaytu faridati wa xaffaftu an ibaadi laa yubaddalu lqawlu yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ñoom lii de juróom la rekk yoo xam ne danga koy jëf waaye pay gi moom juróom fukk lañ la koy faye ku def juróom yi am fayug juróom fukki julli man day wëyal naa farata boobu ma tegoon ci seen kaw waaye nag woyafal naa ci woyafalal naa samay jaam man samay wax du dañ kon juróom fukk yooyu képp ku ko taxawee mel nga ne juróom yi ku ko taxawee rekk am yoolu ku taxawal juróom fukk moo tax mboolem jaamu yàlla yépp julli ràññeeku ci ràññ boo xam ne ndax yépp yi ci des yépp yàlla ma ngi ko farataal ci xeet wi ci suuf ba mu des julli zakaat ak azakaat koor ak aj màkkaak yépp yàlla day def wax yu waaye julli nag moom yàlla ci boppam moo invité yonent bi ba mu ñëw mu joxal ko ko boppam maanaam tête ñoom ñaar ku ci nekk taxaw mu joxal ko ko boppam moo tax julli am dayo boo xam ne yàlla yonent bi sallallahu wax ne awwalu maa yuxaasab bihi l mar yowma alqiyaama assalaa ëllëg li ñuy njëkk a seet ci jullit bi bu taxawee ci kanamu boroomam ñu koy regle mooy julli mu ne bu julli xasee ba baax lépp baax waaye bu julli bonee dara mënatula bon moo tax mu ne baynal mar i wal kufri tarku salaa fa man taraka salaata faxat kafar mu ne diggante nit ki ak kéefër mooy bàyyi julli ku bàyyi julli rekk dugg ci kéefër moo tax xam ngeen ne am bi nga xamante ne dem nañ àjjana am ñoo xam ne dañuy seen seeni xarit walla seeni mbokk ñu nekk ci biir safara ñu yërëm leen di leen laaj waaw yéen lu ngeen di sàggan ba dugg fii ma salakakum fi saqar xaalu lam naku al musalli waaw yéen lu leen dugal fii ba seen morom yépp dugg àjjana ngeen dugg safara te bokkoon ci xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te teewul dafa waxoon ne shafaati li ahli al kabair min ummati sama ramm gi man ko dencel ñi def toj toj yu mag yu rëy yeen kon lu leen ci man ter bok ci ñam ram lam ku minal musallin le ñeuk répondre rek moy mun dañu lankon ne duñu julli motax kon julli ab julli daf koy fonk te itam nak kep ko xamne da nga bëgg baax wala nga bëgg sa njabot baax fexel ba ne julli rek ndax yàlla ci boppam moo garanti ne képp kuy julli te jox ko àqam muy laab ga ca war waajaay ga ca war xushuux bi ci war maanaam toroxlu ak xam ko nee na tanha anil fahshaai wal munkar julli googu mooy dox sa diggante ak lépp lu ñaaw ak lépp loo xam ne yàlla sib na ko bu ko defee moo tax mbollem arkanul islam yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bala mu ñu la koy sante rek nga nek mukallaf bam dess julli motax yonent bi ne muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum biha wa hum abna'u ashrin wa farriqu baynahum fil madaj mu na ngeen digal seen njabot seeni dom ñuy julli bu ñu amee sept ans bu ñu amee dix ans na ngeen leen ca commencé sax di bàcc bàccal buñ ko deful bu leen xaarati ba nga sant leen ko ñu koy door a def fu jote rekk war nga leen a gis ñu jàpp dem julli ji buñ ko deful nag nee na na ngeen leen ci bàcc bàccal ndax xam nga ne julli mooy defar nit comme yàlla wax na ne kuy julli duutuloo mën a def lu ñaaw maanaam duutuloo tux duutuloo jël drogue doo naan sàngara doo sàcc doo fen moo tax ñu bëgg ku bëgg makaarimul axlaax say doom am ko dangay fexe rekk bu ñu nekkee tuut tànk nga commencé julli te di leen digal ñuy julli ndax way jur wu ne dafa wax ne kullukum raain wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wala wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñépp sàmm ngeen te sàmm bu nekk danañ ko laaj lam doon sàmm ëllëg te njaboot gi ci suñ riyaaya lañ nekk ñun la ko laaj yàlla di laaj ëllëg bu ko defee ñu bàyyi ci xel te xam ne daal julli moom yonent bi sallallahu Alaihi wasallam moñu ko andil muy teranga isra wal mi'raj muy rañan bi kon shari la boo xam ne moom mën na nek suñu laissez-passer euleuk buñu ak borom bi ngir mu dugal ñu ci yermandem yobbuñu aljana kon dal ngeen xamne werwi wi moy mooy julli weer wi mooy weer wi nga xam ne moom la yàlla defal yonent bi lu mu mësul defal kenn te duutu ko defal kenn muy mujiza boo xam ne maanaam kéemaan boo xam ne kenn guddi luñ daan dox ay weer mu dem ba baytul maqdis moo tax ñoom sax bañ ko weddee dañoo wax yonent bi na la il faut nga defal ñu pièce à conviction preuve bo xam ne ñuy xam yow mi ke dem nga fa ndax xam nañ ne yonent bi mosul dem masjidul aqsa waye naka ñuko wax ne ko dañoo bëgg nga won ñu bo bo ah, boo waxee ne dem nga fa kay war nga xam nu mel yalla yëkëti plan wu manam masjidul aqsa tek ko ci kanam kanamam mu naan leen bo diké buntu day jor bi boo demee côté droit ñàngami porte fane nàngami fenêtre boo duggee ca biir danga fa fekk nàngami poto boo demee minbar ba fële la féete nàngam nàngam ñoom ñépp ñu yéemu waaru ni ah kii kët mësu faa dem kon bu mënee wax lii kat xam nañ ne kon li mu wax dëgg la te kii kat mooy as-saadiqul amin bu ñu fàtte na nag ñoom ñoo ko tudde woon ki nga xam ne lu mu wax dëgg la loo ko dénk fekkaat ko fa kon soppe bi yal nañ yàlla def ñuy ay cofe soppeem ndax moo wax ne képp ku nekk ci yéen tànk gënamu la sa bopp gënal la sa alal gënal la sa njaboot gënal la say wayjur gënal la àdduna li ci biiram rekk boo waxee ne gëm nga yàlla sa gëm googu des na kon nag yal nañ yàlla boole ci ay soppeem waaye yal na yàlla boole ñu ci maanaam nag ñi nga xam ne dañuy roy sunnaam wa waajibun taatul haadi mahabbatuhu war na ci ku nekk mu sopp yonent bi waaye roy ko lëxal alaamaatu nag dafa am ay màndarga ba ca ëpp doole nag mooy ittibaau sunnatihi di roy sunnaam kon yal nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy roy sunnaam yal nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne ëllëg dana leen ràmm yal na yàlla defal ñu ko defal ko suñ jaboot yal na yàlla def ci réew mi jàmm def ko ci waa réew mi yal na yàlla defal ñu tawfiqul ilaahi lii moo doon seen émission bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci Safina TV ngeen àndoon ceeg seen xarit imam Babacar Mbodj bu Hann Mariste 2 di leen nuyu di nuyu suñu réalisateur yi muy sàmba si di nuyu suñu Serigne Thierno Hamidou Yorobaan mi nga xam ne moom ci mbaaxam ak njàmbaaram ak bëgg lislaamam ci la taxawale safinatul amaan bii def ci télévision bii def ci rajo Safina def fi franco arabe muy daara Cheikh Omar def fi grande mosquée di ñaan yàlla yal na yàlla yàggal taxawaayam yal na yàlla yokk ay xéewalam yal na yàlla yokk ay mayam yal na yàlla defal ko lépp loo xam ne moom la bëggal lislaam rekk yal na ko ko yàlla yombalal di nuyu suñu directrice soxna ñuma di nuyu mboolem spectateur yi nga xam ne ñoo doon seetaan émission bi di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu